ami téléspectateur de Dental TV la Tigresse mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen kontaane bu baax a baax a ngi waat ci seen émission bu mag bii ñuy woowee les rendez-vous du week nee leen chaque semaine rek dañu daal di ñëw fii daal di toog waxtaan ak yéen ci actualité yi nga xam ne moom moo gën a faax ci semaine bi mais nee naa émission bi du ma ci weet benn yoon maa ngi ciy feggoog sama xarit sama frère muy ki nga xamante ne moom moo di Malcolm Malcolm nuyu naa la waaw système waaw maa lay delloo nuyoo di la bëri di la jaajëfee di nuyu mépp internet bi di safoo di seetaan site bi site bi di Dental TV di leen jaajëfee di leen baalu àq tamit si weeru koor bi ñu jógee Siste Eva ñëwaat nañu pour les rendez-vous di di ko faram-fàccee comme dab rek jaajëf. Mhm. nee naa les rendez-vous du nag euh, nii lay demee chaque année rek fii nga xamante ne <laughs> chaque jour rek les rendez-vous du week nii lay demee fii nga xamante ne moom moo di Dental TV dañuy ñëw week-end bu jot rek daal di leen di faram li nga xamante ne moom moo di actualité yi nga xam ne moom moo gën a faax ci semaine bi dañ koy door rek ca jëyee ja nga xam ne moom moo amoon fële ca Thierry Pelin donc ci département bu Thiès la bokk région de Thiès ba tamit côté Notto ki nga xamante ne moom moo di Fallou Diop daal di ki nga xamante ne moom moo di papaam Malcolm noo gisee loolu essence la ko daal di sotti daal di koy taal ba papa ji daal di ñàkk bakkanam donc mais nag ci ay rumeurs yi nga xamante ne nguuda moom moo fa demoon dékkal leen micro am na ci témoignage yoo xamante ne dafa mel ni règlement de compte la ndax ki nga xamante ne moom moo di papa ji dafa takk xale bu ndaw dem ba sa doom màgg nga dem takk koo xamante ne dafa tolloog sa doom kon bu ñëwee rek nii lay demee ci kër gi tamit ah loolu moom tiis la de ab nakar di jaale di profité xam nga pa di si di jaale famille bi yëpp di leen masaw ci woon di leen wax ni metti na quoi ñun waa Dentale TV ñu leen di jaale bu baax a baax di wax ni encore juste dañuy gën a ci tiit rek si àdduna si mujjum jamono. xam nga boo jàngee dégg wala borom xam-xam yi boo boo leen di déglu dañ naa mujjum jamono yu genre yu mel ni rek lay am moo tax ku yabul nag na nga wàcc sa bopp préparation parce que lii moom. tiis la métti la xel xalaatu ko xel mënu ko expliquer. parce que man mii toog fii man ma la wax man ma la ju explication valable lii ak tax mu def ko nangam sanga mais carrément man je me dis que est-ce que euh, saa waay euh, l'enfant maanaam doom ji mu ngi doon mu ngi ak sagom parce que carrément nga jàkkaarloo sa papa bu la jur yàlla jur la si sunna ak farata yàlla ba nga màgg amoo looy def dem jën jëndoo bi màkk jox ko tabaxoo kër dugal ko si. jënd oto jox ko amoo loo ko yéene lu dul jël essence sotti ko taal ko ba mu làkk deebu non loolu moom c'est c'est c'est déplorable te xel mënu ko xalaat xel munu ko expliquer man damay encore di newaare encore la société sénégalaise nañu gën a lu xam nga papa yi di gën di waxtaan ak doom yi parce que peut-être am na des problèmes ñu ngi ci biir ñun xamuñu leen xëy na règlement de compte la xëy na papa mu ko doon def lu mel yooyu mun na nekk moo tax man damay interpeller interpeller tous les parents ñuy gën di diisoo seen doom ñuy waxtaan ak seen doom maanaam paternité bi daw quoi maanaam diggante doom ak papa diggante doom ak yaay maternité loolu yëpp daw si diggante si eh, si famille quoi loolu bu ñàkkee rek mu lu nekk mun na am sa papa mun na la mun nga ko mere nga jàpp sa benn moom la nga dem jaayante ak moom ay nga doonte ak moom ay kurban mais yaakaar na amul paternel bu amul dëgg dëgg dëgg kooku waroon na xalaat lu dul def lii nii quoi loolu moom métti na et j'interpelle aussi tous les parents ñu siy bàyyi xel di veillé moytu def yenn yi seen kanamu doom xam nga balaa moo parce que boo xoolee am na intérieur internet yoo xam ne naan règlement de compte parce papa ji da doon jàpp doom yaay ji di dóor leeru ma si c'est le xëy na tamit parents yi war nañu moytu yenn yi ñu koy def seen kanamu doom parce que doom ak yaay dafa sore parce que dañu naan saa yaay ak doom ñooy gën doon xarit parce que pap doom moom buy gis yaay papa di toroxal yaay carrément xolom mun na sot moo tax yenn parents yi tamit dañuy gën jël seen ay responsabilités yenn yi ñu koy def mbirum mag même bu ñu xuloo ñu koy def mbirum mag di ko waxtaanee foo xamante ne xale du ko fekkee kenn du ko fekkee mu doon entre ñoom ñoo di parents yi aussi tamit donc lépp loo xamante ne rek ñu ngi koy def ci seen biir donc na ump ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci seen njaboot parce que xolu yaay ak doom dañoo jege wala xolu baay ak doom dañoo jege ba yenn saay ñu def loo xamante ne danañ ko regretter doom yi aussi tamit ma di leen ñaax way jur way jur la kon donc lu sëyu yaay ak doom doom wutu ca dara ba di ci wax kon donc message boobu laa amoon loo xamante ne dama koy lancer ci ñoom ñaar ñëpp donc dañuy daal di jóge fii rek dem ba extérieur ñu gis ne racisme ba léegi mu ngi dox fële nga xamante ne moom moo di États-Unis parce que benn policier moom moo daal di faat ki nga xamante ne benn américain noir la mu mel ne tamit blanc yi wuñ ba léegi noir yi ak fële nga xamante ne moom moo di États-Unis bien vrai que ni le gars dafa ivre woon dafa màndi woon policier bi bu mu ko arrêté. échanger te nañ ay ay kàddu yoo xamante ne yu xaw a ñagas la mais aussi tamit amul woon droit di ko di ko xoj ba jël tànkam di ko di ko teg si ku bi ba nga xamante ne daal di koy def yenn jëfin yu ñaaw yoo xamante ne ba ci la ñàkkee bakkanam mais loolu nag dugguleet ci fa nga xamante ne moom moo di États-Unis la gaa mu ngi tudd li nga xamante ne moom moo di George Floyd donc <laughs> anglais bi laa mënut a prononcer nag dégg nga. <laughs> c'est comme ça ça waaw c'est lii dañu naan dañu naan euh, dugguleet quoi et aussi tamit c'est un acte barbare et inhumain quoi loolu. loolu tamit dañ koy déplorer parce que boo xoolee xëy na sama idole Malcolm yu mel nii la doon xeex boo xoolee moom depuis mille ba mu juddoo mille neuf cent ba mu juddoo ba léegi carrément ba 1925 ba mu faatoo àdduna ba léegi xeex yu mel nii la doon xeex États-Unis racisme parce que lii moo nekkoon son combat maanaam la liberté des noirs boo xoolee ku si mel ni moom ku si mel ni Martin Luther King ñoom ñëpp genre xeex yu mel ni na xeex maanaam euh, l'épanouissement de l'homme de la race en Amérique moo tax tey jii nii ñoom ñu dem ba am ba am am nañu ay ndam. parce que seen mënuñu ne seen xeex amuñu si ndam mais ba tey des na parce que bu ñu demee tey jii ba ku mel ni un américain noir nekk jiite les euh, les États-Unis d'Afrique d'Amérique autant pour moi. kon di on peut dire que loolu seen combat amoon na njëriñ mais boo xoolee si depuis depuis temps Malcolm ba léegi. genre yu mel du dafay am ça pose problème et alors que tey jii man moo tax man parfois su ma tooyee gànn naa la démocratie petit à petit c'est Afrique. aussi tamit racisme dañoo war a ne. fii dañ mm-hmm. bàyyeekoo. aussi mm-hmm. la traite des des noirs. Mm-hmm. la traite fii lañ jugee seen i des africains kon aussi comme ñoom war nañu respecter les noirs africains aussi tamit on se dit la vérité. oui absolument noonu la war a demee te boo xoolee à chaque fois nii lay demee chaque deux ans trois ans il faut cas yu mel ni am États-Unis gars yi génn les noirs génn ak certains blancs manifester ko xeex ñu def ay forum def ay marche def ay sit mais après day noppiwaat après deux ans trois ans gens yu demee ni ñoom mais il tànk xam nga que les américains ou bien xoolal racisme moo war a jeex si àdduna. war a jeex si àdduna waxatuma la Amérique kese mais dafa war a jeex si àdduna parce que ñun ñëpp ñun benn lañ tubaab bi gënul noir bi noir bi gënul tubaab bi ñun ñëpp fa. bu ñu bu ñu bu ñu deewee ci benn ci même jeu bi la ñuy delluwaat. Mhm. kon tey ji nii loolu c' est déplorable. Mhm. et surtout maanaam ces gens de fait dafa récurrent encore une fois si mhm. États-Unis donc la leader yu fa nekk nañu jël ay dogal ak ay mesures sévères parce que boo xoolee la plupart du temps ay policiers ñoo koy def. la plupart du temps ay policiers ñooy ñëw jël ay américains di leen rey nii di leen tiire. yaa ngi fil te ko professionnalisme kenn du leen ko jàngal ñoom waroon nañ mën a xam nu ñu leen di cadré ba yi genre yu di am quoi encore c'est à déplorer encore bépp doomu aadama war nga mën a ñaxtu lool te tey jii ne Amérique kese waruñu génn def ay marche c'est le monde entier ñoo waroon génn solidaire noir blanc loo mën di doon musulman chrétien nga génn def siti marche nga wane carrément racisme dafa war a stop dans le monde. ok macha allah Malcolm sa contribution am na solo mais nag dañuy daal di ñëwaat xuus léegi daal di dugg fi nga xamante ne moom moo di Sénégal bu ñu quitté États-Unis mu mel ne jouru Korité bu nit ñi dem di baalu ak ñenn ci sénégalais yi ñu ngi tëju woon fële nga xamante ne moom moo di ci seen appartement fële nga xam ne moom moo di mixta te ay jeunes adolescents lañ ay xale yu ndaw yoo xamante ne tojaguñ sax ci xottu nen di jouer li nga xamante ne moom moo di film pornographie est-ce que tamit ñun lan tamit Sénégal xamante ay nit yu baax ñoom ñoo fi tëdd jeunes yi war roy ci ñoom donc di dem ba nga xamante ne dañuy copier ci occidentaux yi te instant bi sax occidentaux yi instant bi ñoom jomb nañoo def yenn yi aussi tamit ay xale yu ndaw tëju seen appartement mixta jour korité ñu gis na jàngoro ji Covid 19 yàlla moom ñuy mbugal xaw ma on xamuñu lu mu doon balaa la wala lu mu doon ñu war a jaamu yàlla ñuy dem di jouer ay film pornographie Malcom donc euh, geste bu bon boobu nga xamante ne ay jeunes def nañ ko ci tëju ci seen appartement di def naka sadul noonu donc est-ce que tamit éducation euh, du à bas lañ koy tàmbali. ok sister loolu tamit jot nañ ko dégg et c'est déplorer bu nekkoon ay majeur sax peut-être xel mu ngi ko nangu tuuti mais ay mineur à ce point c'est déplorable encore une fois mais day dellu encore ci sama. Euh, dernier invité bu mu mujjoon am si benn émission plateau waxtaan muy Henri Idriss ñu doon waxtaan ñu ne ñun Sénégal dañu war a xool suñu modèle suñu suñu façon jàngeen. xam nga tey jii nii boo xoolee ñun ñëpp xale bi boo amee de 5 ans jusqu'à ba ngay am 18 ans peut-être yi école bi moo moo lay jàngal. tu passes peu de temps avec ta famille école ñaata mois la. ah 6 mois 7 mois ba presque n'est-ce pas kon diituwaa ko kon c'est l'école qui éduque mais tey jii nii ñun bu ñu ñëwee suñu système moo tax à chaque fois lorsque ñun dañuy taxaw naan le système éducatif sénégalais dañu ko war a xoolaat genre yu mel nii la. parce que bu njëkkaan ñun bu ñu doon jàng primaire dañ lay jàngal civisme. Mhm. donc ni nga war a comporté woo boo wàccee ni nga war a def loolu amatul. éducation nu mu tudd civique la tudd. non non non ah, civique éducation éducation morale mhm. éducation amatul ci établissement yi aussi. même bu amee sax su fu may laal éducation bi parce que tey jii ne bu ñu nee école école mu éducation lañu yar la da sol nit ki xam kan tamit nga yar ko nga jox ko ay nga inculquer des valeurs civiques mais tey jii boo xoolee ñun suñu éthique suñu école xale yi fu ñu la war yóbbu yar leen tàggal leen ñun jàngaluñu suñu ay culture ñun ay Mao Zedong lañ ñuy jàngal ay it Hitler ay Charles de Gaulle ñu ne ñoom bokkuñu aada. yaa ngi ay niche yooyu la ñuy jàngal ay Karl Marx c'est bien jeune ne dis pas que bien mais tey jii pour pourquoi pas aussi tamit ñuy jàngal suñu doom yi wala suñu rakk yi nangam sangam des choses yoo xam suñu culture la. di leen jàngal parce que tey jii nii nit ki boo ko jàngalee xaadim rasul jàngal ko maam li maamul laay xëy na nga def loolu lool sax si xolam. Mhm. ñooñu boo leen imité danga nga leen imité si lu baax. yaa ngi comprendre mhm. c' à chaque fois dañuy renforcer encore éducation li la rek parce que éducation moom boo ko pertee mhm. ça pose problème déjà notre éducation dafa am problème. parents yi de de nos jours parents yi amuñu temps toog ak seen doom seen parce que ñëpp ñu ngi à la quête de quelque chose dépense quotidien amuñu temps toog ak seen doom yi yar leen comme il faut école bi moo aw waroon am boobu tamit école bi joxuñu ko ay programme yoo xam te ne mën na permettre muy yar xale yi nga xam ne xale yi war nañu xam ni lii jom war nañu ko def lii waruñu ko def waruñu ko def loolu benn la deuxièmement nañu tamit xoolaat suñu télé yi parce que tey boo xoolee suñu télé suñu télé waaw suñu télé yi sax ñu ngi góorgóorlu di léegi sax di indi suñu ay di indi ay série mais tamit ne nañu waxante dëgg am na série yoo xamante ne carrément lan la mën a sénégalais lambda bi parce que yaa ngi joué série yaa ngi wax wolof mais indi réalité sénégalais parce que am na yoo xamante ne am na am na xale yu genre xale yu ndaw yooyu ay victime lañu ah dañuy gis si série yi parfois dañuy yaakaar c'est la réalité alors que la du réalité nit ki dafa taxaw nii rek dafa am rôle bu ñu ko jox mu ko bu paree da koy dem day dem nekk nekk nekkaatam yaa ngi comprendre moo tax encore éducation lenn la c'est l'école ak la télévision moo tax parfois télé yi nañu gën a xool seen ay programme ñu def ay programme éducatif forcé ko nit ñi xam nga gars yi mën ko seetaan mën si euh, am benn genre benn comportement bu am seen carrément c'est à respecter ok macha allah ñooñu nag xaw ma lu ñu ci jublu woon buzz lañ doon wut wala donc dañ koy daal di demee ci kër nga ne moom moo di Ouzin Keita ak ki nga xamante ne moom moo di Tange Tandian Tange nag daal dina xëy porter plainte ki nga xamante ne moom moo di Ouzin Keita ndax kii di Ouzin daf koo jiiñ borom ñaari tur da koo tëddee xaw nag dëgg la wala du dëgg parce que te ñoo dañoo gis ci ñi nga ne ñoom ñoo di célébrité yi ñoom def ba buzz rek dañ koy def buzz la wala du buzz donc Malcom naka nga gisee jëf ju ñaaw jooju nga xamante ne ñaari góor ñuy waxante dañuy tëddante tamit <laughs> on se dit la vérité le Sénégal va mal ah. ah non la rek man su ma fi nekkee sax de commandé am jot la quoi xam nga Sénégal il faut que ñu focaliser sur l' essentiel des choses. on a quelque chose quelque chose qui est là lu essentiel. il a une crise sanitaire. parfois am ñu ko naan crise mondiale na gars yi focaliser mais dama seetlu Sénégal à chaque fois des choses sérieuses qui son là yaa ngi comprendre il faut que ay buzz kii lii la kee la kii lii la yooyu kii pour pour diverser gars yi te boo xoolee peut-être di nga si ñëw parce que Sénégal tey jii nii am na yeneen sujets yu gën a tabu yu gën a intéressant yu gars yi di waxtaane mais il faut que gars yi divertir la la masse di wax si li wax si li wax si loolu lañ ñoom la man ga xaw am na wala mais loolu la wala du loolu man du ma ne Ouzin lii la Tange lii la sérieusement du sama domaine xaw ma mais bu nekkee tel est le ñoom la c'est leur vie quoi après ñoom la si des ils vont la gérer après am na tamit ay autorités yu compétents yu mën a gérer loolu quoi mais loolu du débat parce que loolu dama jàmm sorte de diversion la rek mais am na des sujets gën a tab yu nekk Sénégal yu a mën a waxtaan yu ñuy jëmale kanam mais <laughs> nga xamante ne di Sénégal ñu ci bari di xaar état bi pour mu daal di génn li nga xamante ne di ay nu mu euh, aide alimentaire ak li nga xamante ne di budget pour euh, daal di koy jox population bi mu mel ne Barthélemy Diaz nag moom xaarul état bi benn yoon dafa jël fond am di jàppale ñi nga xamante ne moom moo di commune am di Mermoz Sacré-Cœur daal leen di jox ravitaillement doyut ci loolu ni semaine bi aussi tamit mu daal di jël ay bon lu tolloog ci cinquante mille ba ci vingt cinq mille daal di jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo di commune lan nga gis ci li nga xamante ne moom moo di Barthélemy Diaz est-ce que maire yi tamit jotuñu copier ci ki nga xamante ne moom moo di Barth man Barth laa gëm de waaw xam nga Barthélémy Dias moom dañ koy encouragé di ko gërëm di ko jaajëfee di wax ni Sénégal bu ñu perte espoir. parce que boo xoolee la majeure partie de la dañoo perte espoir mais alhamdulilah y a des Barthélémy Dias temps a tant d'autres du ma cité mais au moins ñun tey jii nii am na ñoom te ne wal nañ ñu carrément. la definition di mot politique ñoom ñu ngi koy jafe mooy qu'est-ce que la politique c'est l'art de bien gérer la cité et Barthélémy Dias daf ko prouver te ko que xoolal maire kese la budget amul doole mais tey jii nga gis ay ministres yu nekk nii di suñu xaalis ñu koy jël di ko caaxaanee ñi di jël ay combien de milliards yaa ngi di ko caax di leen ne mais alors que moom benn maire la peut-être gérer sax ay milliards peut-être ay millions la gérer yaa ngi comprendre muy def li parce que Covid boobu mu tàmbalee ba léegi moom mun naa ne Sénégal c'est le moom mooy autorité waxuma la maire de c'est le seul autorité boo xam ne il a il a pris ses engagements maanaam waxtaan ak population ànd leen gunge gunge leen parce que même boo président Bla Macky Sall ba mu waxee naa jumaay nañu ubbi nangam sangam mais jumaay nañu ubbi amul benn suivi amul bi état bi yow dama nga jàppale leen mais dama dama nga fekk leen ñoom 100 francs la ñu soxla ngay leen fukki dërëm yi ngi nii yéen tam jumaa ji indi leen fukki dërëm nga jàppale leen si ay masque si ay gel mais ubbi leen jumaa ji mais respecté mais ñoom yëpp am xaalis mais boo xoolee ba mu ko defee Barthélémy Dias moom génn na def communiqué si si commune am mu ñaax yenn commune mu ne leen balaa ngeen di dem julli ba may leen ma temps ba ma defee ba ba ma indi defee euh, ñu képp kuy ñëw julli encore na nga indi sa tapi nga julleeg sa tapi nga yóbbaale sa parce que moo gën a wóor nga xam ne ko moo ngi jël ay engagement te carrément dafa won carément gars yi dafa lay won si Covid bii nii dafa won gars du seen morom. patriote la gëm na réewam moom jëriñoo réew jëriñoo réew mi. maanaam moom réew baa ko ñor ak population bi te en tout cas man je l' encourage et c' à suivre te maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla gën ko taxawal xam nga lépp lu mu namm Sénégal mu mun ko matale ba mu mun ko réaliser en tout cas je le félicite euh, de passage quoi Barthélémy mm-hmm. merci beaucoup c'est un geste à saluer mu mel ni ki nga xamante ne moom moo di maire Guédiawaye di Alioune Sall jàngoro ji di Covid 19 daal na koy dal mais nag bi ñu amee ci source kii di jabaram moom moo ko ko wàll jabar ji aussi tamit chauffeur bi moom moo ko ko wàll sénégalais nag au lieu que ñu ñaanal ko mais dañuy réclamer seen 400000 tamit. <laughs> waaw waaw waaw. Euh, suñu nijaay wala suñu tonton xam na laa ko mu ne Alioune Sall sénégalais comme ñëpp avant tout d'abord bu weesoo des querellements politiques xam nga c'est un sénégalais doomu aadama la waruñu ko ñaanal safaan n'est-ce le fait que il est atteint du Covid 19 man damay bokk ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale ba mu génn si loolu. mais une fois de plus xam nga nañ gën ñoom nañu gën a am taxawaay parce que lii jàngat la rek. parce que am nit boo nekkee si réew ñu jox la alalu réew mi nga jiite defal lu gën. parce que man gëm naa ni ñaanuma ko yàlla fekkoonte ñu peut-être ku ci mel ne Barth la wala nangam sangam Sénégal léppay ànd jaaxle. mais tey jii nii Aliou Sall nañu waxtaan nañu waxante dëgg rek dañuy xool dañuy xool lu nekk réseaux yi yaa ngi ñu koy ñu koy moxke ñoo ëpp ñu koy ñu koy ñaanal jàmm mais yëpp dafa am lu muy wane quoi mais man daal damay dama koy ñaanal yàlla yàlla ëppaat ëpp bopp bi xam nga ba delloo ko si ñun ñu gën a xoolaat seen bopp xam ne réew mi ñu ne ñoom ñoo ko bokk bu weesoo affaire politique kenn yéenewu fi kenn lu bon te lii bu ñu si jógee ñu gën a xoolaat seen bopp ñoom ñëpp nag waa nguur ñëpp ñu xoolaat seen bopp ñu xam ne àdduna nii la rek que tey jii nii ñu ku yor ay milliards wala ku yor ay Covid bi ñëw jël ko bàyyi ko baadoole bi ay misaal la rek nañu waajal seen bopp xam nga xam ne àdduna dara yàggu fi quoi te alalu àdduna tamit day jeex fii lañ koy baax rek waaw de passage ñu ngi koy ñaanal yàlla wér gu yaram ak wér. ok dañ koy ñaanal rek yàlla daal di koy fëgg boppam mu delluwaat ci njabootam mi nga fa li nga xamante ne moom moo di ca hôpital Dalal Jàmm bu waaye dañ koy daal di tëjee li nga xamante ne moom moo di décret présidentiel bi nga xam ne dafa am fuite. ñu gis ne son excellence monsieur Macky Sall bindoon na benn décret mais daf ko nëbboon mais décret bi dafa am fuite ci réseaux sociaux yi ci lañ ko tasee pour di wax ne ki nga xamante ne moom moo di Aminata taal liñ ko war a fay globalement te liggéeyul. ci 6 millions lay toll kon donc naka nga gisee ñi nga xamante ne dañuy toog liggéey ñu di leen fay ñun aussi tamit ñu toog amuñu ah, di wër liggéey joxuñu ñu 100 francs di ko jox ñi nga xamante ne doyewuñ ko dara tamit euh, est-ce que tamit du affaire nu mu tudd golo di bay baabon di dundee wala affaire de kumba am ndey ak kumba amul ndey. ok parce que waaw sister boo xoolee décret boobu mu ngi nekk décret 2020 900 964 n'est-ce pas parce que boo xoolee décret bi. dafa njëkk am fuite maanaam boo déggee fuite dafa dafa senn décret bi mënuñu ne dañ ko nëbb wala nëbbuñu ko mais peut-être ñoom dañu doon xaar un moment opportun génne ko mais être y a eu ko ci réseaux sociaux yi ko site internet yi récupérer ko xam nga internet di ci ba il à la fin ça mouvement présidentiel ñu yor wàllum communication bi su ma jëmul def benn démenti bind communiqué pour démentir boo xam ne c'était vide aussi amul signature amul dara amul benn moo tax il a fallu que mu suscité ay critiques mais juste une chose nguur bii nii xam amuñu sens maanaam lu jigoon Senghor jég Abdoulaye Wade jég Abdou Diouf jégul nguur gi. Ah, ah. mhm. foofu laay waxee. réseaux sociaux lu dangereux la. parce que tey jii nii man je ne peux pas comprendre xam nga genre lu mel ni décret bu mel ni amoon na fi. mooy affaire ug euh, e bi. décret kii maanaam rapport ug e bi amoon na fi bu bu ñu doon tuumal Alioune sàll boobu comment ça peut être. IGE nekk bureau IGE nekk dans euh, kii ci biir présidence. Mhm. ñu def un rapport. ñoom ñu ne jébbal nañ ko le président de la république après après 5 ans wala 6 ans président de la république génn ne moom mu gisul mosul gis rapport te rapport boobu ci réseaux sociaux lañ ko gisee. maanaam ñoom tey jii nii les les médias classiques ci autre source ay RTS da ngay def dara bu njëkk ba da ngay toog. gouvernement bi def dara pour nga xam dëgg la wala du dëgg dangay dem RTS wala nga dem feneen wala fajir nangam sangam mais léegi télé télépoche dafa am ma mii mal ko mën naa gis dara loo xam ne lii lii baaxul si réew mi ma filmer ko dugal ko sama sama page ñëpp koy jot maanaam pour le montrer ñoom amuñu sens ils ont l'intérêt lépp lu ñu def ñu def fiable parce que c'est par la première fois ay scandale yu mel nii di am ñoom ñu koy jéem a nëbb mais ay booy yoo xamante ni dañoo jàng ne ar yaa ngi comprendre loolu loolu di Pape Alé Niang di faral di wax rek yaa ngi comprendre koo jàppee dof koo koo koo jàppee dof o contraire moom mu ñu ut ay garab yu mu la fajee te sa sa sa garab jafe lool maanaam foofu laa bëgg a indi gouvernement bi nañu xam ne ñoom amuñu sens boobu lépp lu ñu def nañ ko def dans la transparence alors que c'est le président Macky Sall moo woote woon lool une sobre et vertueuse la la patrie avant avant la partie nañu jëfe loolu ñu am woy bu rafet mais tey jii nii nan la ñu mën a nekkee dans une crise mondiale monétaire économie sanitaire Sénégal lépp taxaw Tata Aminata Tall depuis nga jël nga casé ko benn nga créé benn institution bu xam te ne benn sénégalais mënu la wax sa institution bi lii lay jëriñ sénégalais même ñuy liggéeyee foofu mooy conseil économique et social et environnemental même ñu fay liggéey boo leen tàllalee micro sis leen lii lan mooy seen liggéey billaahi duñ la jox euh, réponse bu valable am ñu koy tuddee case des clientèles waaw am ñu koy tuddee waaw am ñu ko tuddee des des des euh, euh, benn poste boo xam ne da nga politique kooku nga dem ba léegi nga bugg ko fa jëlee mais léegi loo boo ko jëlee xayrun mais li nga bëgg léegi jël l' argent contribuable du sénégalais liggéeyalul Sénégal defalul dara instant yi Sénégal nga bëgg ko jël jox ko chaque fin du mois 4 mille 4 mille 4 millions cent jox ko véhicule jox ko garde ko jox ko 500000 litres mais moom kese yi moom gënu gënuñu juddu. yaa ngi comprendre mais imagine xaalis boobu 6 millions yi Sénégal euh, kii ma euh, euh, bi est-ce que bu ñu ko jëloon jël si ay jeunes entrepreneurs yu nekk Sénégal ñaata ay entrepreneurs Sénégal yoo xam ne am nañu idée mais dañoo manqué financement ñu financé leen ñu créé dara. am na booy boo xam te ne Touba ba gars yi benn jeune entrepreneur ma fàtte trop mais ba gars yi ne na ñu ubbi jàkk bi moom moo toog créé benn genre machine boo ñëwee foofu ngay dajee fenk teewoo. mais kooku bu ñu ko kooku peut-être ju 10 na créé loolu teg leen foofu. ay ay jeunes entrepreneurs ay ay jeunes entrepreneurs ñoo xam dañuy nekk di defar gel pour ñu bañ a wàll yaani dara mais amuñu financement nga jël benn 4 millions cent nga jox ko tata boo xam te depuis Senghor ba léegi mu ngi fay ak ay millions ay millions. qu'est-ce qu'il veut encore qu'est-ce ay étudiants ngi nii di peine pour leur bourse ay chômeurs nekk fii di peine Sénégal ñaata ñaata jeunes ñooy ñooy chômer ñoom mënuñu la ko wax tey dañ naan la chiffre bi benn ministre génn génn la chiffre ñoom ba léegi ñoo xamuñu sax statistique normale ñuy chômer te ñuy chômer dañoo bëre kon Sénégal. nañu xoolaat seen bopp président Macky Sall xoolaat boppam encore une fois peut-être jàpp naa dernier dernier mandat am la ne parce que mu ngi si deuxième mandat na def loo xamante ne dafi am woy woy ba faw nga xam ne chaque année. ñun jeunesse bi wala jeunesse bi dañuy am mbégte ak bànneex di ko fàttaliku di ko commérer naan carrément suñu président moo ñu defaral li moo ñu defaral li mais carrément fekkente ñoom ñi lañ bëgg yore réew mi si ay def nañ defuñu def nañ def ala au au au au finish ñoom ñooy génnewaat wanewaat li ngeen doon wax dëgg la parce que ñoom boo xoolee dañoo njëkk génne euh, décret bi ñu ne ñoom noonu du dëgg. dem quelques jours plus tard wala une semaine ñu génnee décret def ko journal euh, officiel du président ñu wane décret bi am na kon ñoom ñoo waxoon weddi seen pare. encore waxaat ni carrément am na kon ça pose problème boo amee ay njiit yoo xam ne tey ñu ne la lii la suba ñu ne la lee la ça pose problème te après que ñoom nañu xam ne nag ñoom amuñu sens mënuñu nax kenn mënuñu nax kenn mënuñu intimider intimider kenn réew mi ñu ne ñoom ñoo ko bokk dañ leen dénk ah abalul leen de mayu ñu leen dañ leen ko dénk après demee dañ fiy jóge keneen ñëw pourquoi pas man Malcom sax. <laughs> <laughs> waaw de passage maa ngi gërëmaat ñëpp di jaajëfee ñëpp ñu doon jël seen temps di seetaan seen émission bu mag bi di rendez-vous du week encore une fois di jégalu mbokk internet yëpp fekkee on a wax nañu fi loo xam te ne jaaduwul mais juste que xam nga rek nit moo matul quoi et puis encore une fois gënuñu fi jàng kenn gënuñu si xam kenn Sénégal dañu ko bokk dañu ko war a waxtaanee te encore une fois dama yàgg waa jeunesse bi nañ leen jox kàddu parfois ñuy wax ñuy ñuy parce que dëgg puso bu réer la naa fi wax loo xam te lu lu war a mën a defar la ko déglu mais waxuma pour par parlo wala feelaa fa war na aw ma jotam sax yaa ngi comprendre c'était une juste une critique objective te maa ngi jaajëfal jaajëfal di leen joxaat euh, rendez-vous si euh, beneen samedi si beneen émission des rendez-vous du 8 avec Sister Eva that was Malcolm thank you for having watched me ok dañ koy daal di jaajëfal bu baax a baax moom moom Malcolm nga xam ne moom laa doon feggoog ci émission bu mag bi ñuy wax les rendez-vous du week kon donc Sista Eva la Tigresse mu leen di jox dig daje ba beneen mais nag damay remercier bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxawoon ci caméra bi nee naa la bu gis-gis bi leeree dégg-dégg bi neex du ci ñun ci ñoom la ñoom ñooy les hommes de l'ombre ku ci mel ne amaama mu ngi teewoon benn caméra bi euh, kii mu ngi ko doon assisté mu nu mu tudd Mouhamed aussi tamit moo tee beneen caméra bi déggoo li ma wax ana Aliou aussi tamit nee naa Canada Dental TV dañoo paree nu ne ah kan moo doon assisté li nga xamante ne moom moo di son et lumière nguuda la sista Kumba aussi tamit moom moo doon vérifié li nga xamante ne moom moo di table de mixage yi ñu dee daan jox di daje ba beneen samedi rek ciao mes amours